Cheikh Ahmad Bamba moo njëkk a xàll yoon wi moo wax ci masaalikul jinaan ne wa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahiida sawaawun intama ila aljaylaani aw intama li ahmad tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi id kulluhum qataan ala sawaabi ba mu ko defee e, maam Moor Jaara ak e, sama maam ñoo wóllërante woon ba maam Moor Jaara nelawee sama maam rapidement dem jaale ji ko ba mu ko jaale jee eh, foofu la yëf yi commencé ba sëñ Modou Moustapha nelaw an doon sama xaritu baay suma baay dem jaale ji ko jaale ji ko sëñ Fallou damay wax ne Hizbut Tarqiyyah dafa ñëw dekk benn parti boo xam ne ñi jàngoon français gëm Marx gëm Engels gëm Lénine nanguwuñ sëñ Touba nanguwuñu El Hadj Malick nanguwuñ ñooñu Hizbut Tarqiyyah fo foofa la Hizbut Tarqiyyah foofa la jaar pour seen karwaar yi ñu daan wax ne je ne suis pas libre mu yóbbu la Touba ba mu la yóbboo Touba nga jébbalu ci sëñ Abdoulaat roy jukko ja roy mbubb mi ne léegi je libre léegi nag euh, tax na ba nga xamee ne yoon wi gën nañ koo fonk ci wàll culturel